réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll ami chers internautes yéen ñi safoo di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar mu doon loo xamante ne lu doy waar la te xaw a reetaani lool ki nga xamante ne moom moo di Ngagne Demba moom gën koo xam ci Mbappé Pape moom nag gannaaw démb bu mu génnee dal ci li nga xamante ne moom moo di Ismaïla Madior Fall mili mi nga xamante ne moom daal la ñu li nga xam ne moom moo di wàllum justice Ismaïla Madior Fall lépp loo xam ne waxoon na ko Ngagne Demba daan dina ko teggi benn par loolu tax na nag tey jii bu ñu xëyee ki nga xamante ni moom moo di Ngagne Demba Touré moom muy nga xamante ni ab grève la moom daal dinañ ko daal di euh, affecté feneen fële li nga xamante ne moom moo di région bu naan Matam su ko defee daal mu daal di sori li nga xamante ne moom moo di Sénégal ndax li nga xamante ne moom moo di ngañ Demba Touré lu mu leen wax dëkk bu wér péng la loolu rek tax ndax conférence de presse yi nga xamante ne ñoom daal daal dinañ ko def su ko defee daal Ngagne Demba Touré xaw leen sori tool loolu tax na ñu dem euh, affecté ko fële sa tribunal grande instance bu nekk fole sa raison bu nekk fële sa Matam loolu daal lañ ci amoon ci ay xibaar jaa ngeen